maanaam di leen di toroxal bañ na tonto jafe-jafe yi nga xamante ni taskatu xabaar yi ñoo koy dund ci Sénégal mara de tale mën na yi intimidation yi convocation yi ma ngi mel ni tulleeg man la ci bi di mi quotidien nee na bul sori ci réew mi di Sénégal ndax bëri na ci taskatu xabaar yoo xam ne jamono ji ñuy àddoo ngeen di teewlu maanaam ñoo ngi ci loxol yoon am na ci koo xam ne Pam Ndiaye la tudd caabi da ko féete ginnaaw am na ko ci tudd ji ma bi nee na mbiri Pape ko yéen kay gi nee lépp nag soo ko boolee mooy firndeel ne Sénégal lu jëm ci wàllum liberté de presse dafa daal di deltu ginnaaw ba maara détaali journal bi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Bamba Kassé mi nga xam ne moo jiite kuréel gi di SYNPICS daat nay wax ne journaliste yi jamono ji ñoo ngi ciy jafe-jafe ndax bëri na ci taskoro xabaar yoo xam ne amuñu ay contrat Mamadou Thior mi nga xam ne moo jiite Corrète moom tim daat nay wax ne tëj benn taskoro xabaar maanaam ci ab liggéeyam loolee rek doy na sëkk luy firndeel ne deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum liberté de presse journal bi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu deltu na ginnaaw lool lool lool ci lu jëm ci wàllum liberté de presse ndax lu jëm ci mbirim Pam Ndiaye mi nga xam ne jamono ji ma ngi ci kasu bi ak Pape Alé Niang mi nga xam ne jaaba jonge na diggante kaso ak këram loolee tax na maanaam Sénégal del du ginnaaw bu baax a baax ci lu jëm ci wàllum liberté de presse yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Ibrahima Lissa Faye daat nay wax ne c'est la fois ñuy màggal li nga xam ne mooy liberté de presse jamono joojee am ay taskatu xabaar yoo xam ne ñoo ngi ci loxol yoon loolee doy na waar lool ba tey ci bi moom Ibrahima Lissa Faye daat nay nga xam ne moom lañ dugal ci ci kaso ba mu waxee la muy wax maanaam mënoon nañoo génne ab démenti ab weddi rek doyoon na ci waaye nag jamono ji li nga xam ne moom lañ ci gisal maanaam dañu koo bëgg a toroxal yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu liberté de presse moom est duñ ko bàyyee wax sax ci réew mi journal bi nee ci naax la jëm ndax nag ci diggante ak 2023 deltu na ci ginnaaw lu toll ci juróom fukk ak juróomi place 55 place yoo ko waaye natt daan na koy passé journal bi de Le Quotidien yor yor moo xëy ñu ko xibaar nee na yu am jom yi ñoom jamono ji nag maanaam ñoo ngi avancé bu baax a baax ci lu jëm nag ci wàllum liberté de presse waaye réew yi nga xam ne la yàlla xam doy na mel ni Sénégal ñoo ngi deltu ginnaaw bu baax a baax yéen kay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar ñu tey ji mooy bëccëg ne moom la ñu jagleel liberté de presse di ci àdduna bi nga xam ne mooy Babacar Touré lu toll ci juróom benn guddi retour de parquet journal bii di enquête nee na journaliste jamono ji ma ngi ciy jafe-jafe ndax dafa daanoo crise crise la daanoo journal bi nee na ñu gaaw rawale ko nag urgence yéen a kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu journaliste Babacar Touré kay dañu ko daal di évacuer principal ci ni mu gën a gaawee journal bi di di li quotidien ak le témoin xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllu mbind mi ñi nga xam ne ñooy waa Sénat nee nañu prime votant yi am na lu toll ci deux cent quatre xam ne bindu nañu yéen a kaay nekk ci départemental gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany ñoom nag nee nañu Bougane Gueye Dany sa tànk bu mu jaar ci dialogue politique bi te nag décision bi nga xamante ni jël nañu ko ñun fédération départementale maanaam mënuloo koo ñàkk a bañ a respecté yéen kaay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu dialogue bi nga xam ne dil la bi dil la kan moo ci profité kan la dialogue bi amal njariñ lan moo tax Macky Sall daal di tànn PDS bàyyi Idrissa Seck loolee ab laaj la gi de réew mi ko di jee ñu lu jëm ci wàllum science po nee ma wax nag bu ci Ousmane Sonko bokkul amul benn sens professeur Moussa Diaw mooy waxaat yéene kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Alioune Tine daan nay wax ne confrontation boo moytuwulee dina am te confrontation kenn amu si intérêt président Macky Sall mi nga xam ne nag moo wote jëla ko moom ci boppam moo war a créer ay conditions conditions yooye nag libéré ñi nga xam ne ñoo nekk ci kasu bi daf cee bokk moom Alioune Tine ci biir journal bii di 24 heures nee na ñi nga xam ne ñoo ci faatu dafa bëri lool Sénégal ñi nga xam ne ñoo ci blessé ci manifestation dafa bëri loola Sénégal ñi nga xam ne jamono ji ñoo nekk ci kasu yi dafa bëri loola yéen a kaay gii de la Tribune nañu xëy fekk fa Maodo Malick Mbaye mouvance présidentielle nee ma Benno Bokk Yaakaar Maodo Malick Mbaye nee na Ousmane Sonko bu dee nee na du dem si dialogue bi dafa war a bañ a influencer kenn Aminata moom tim bu dee nee du dem si dialogue bi warut a influencer kenn yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee na bu ñu waxantee dëgg mooy dialogue bi amul benn njariñ yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Kajoor waaye nag ba muy dem Gàmbi la jaar moom Ousmane Sonko mën na la gis nga entre Gàmbi ak Sénégal tableau boobu nga xamante ni moom la ñu bind Sénégambia mën na la foofee la Ousmane Sonko toog daal di photo woo journal bi nag nee na Ousmane Sonko dafa wax ne contrôle judiciaire am bi jeex na tàkk ginnaaw bi instruction dossier bi jeexee ne kay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko nag jamono ji maanaam dafa mel ni dafay kokkoli justice bi désobéissance bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko woote woon jamono ji nag daf koo daal di jëmmal moom Ousmane Sonko nee na bii nag mooy sama njëkk bu génn ci Sénégal ginnaaw ñaari at ak ñetti weer yéen kaay gii di la regard xëy fësal ci xëtam mu njëkk ne Sonko sous provocation judiciaire man na la gis nga Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngi wan justice bi na leen man sama yoon sama ngañ faalewu ma leen yéen kaay gii di Walf Fadjri xëy duñuy xibaar naa ñu Ousmane Sonko kay contrôle judiciaire bi daf ko daal di xotte yéen kaay gii di Les Échos nee na lu jëm ci wàllu manifestation yi nga xam ne tegoon nañu leen na lu toll ci ñeen fukk ñoo xamante ni déglu nañu leen ma ne la juge troisième cabinet Diomaye Faye déglu nañu ko ay avocat am ñaan nañu liberté provisoire yéen kaay gi di source a xëy dañu xibaar naan ñu Souleymane Teliko ma nga centre Afrique waa Souleymane Teliko moom lan moo tax mu dem centre Afrique journal bi nee na nag li tax mu dem fa dafa am benn appel à la candidature ndax dafa am benn tribinal spécial bu ñu créé centre Afrique ginnaaw nag bi ñu defee appel à la candidature si la ñu copte jël ki nga xam ne nag moom mooy Souleymane Teliko ngir nag mu occuper poste juris expert ci tribunal boobee